وحبيبي وسلم تسليما سفر بمسة جنة سفر بمسة جنة ساتلي لي رب البرية البدن ساتلي لي رب البرية البدن أسبتها من خلوني بالندم فديتني فديتني ربي بسلوى ألن شاشة حميدك بولن وخدما شهادة لي وما بتن من دي منورة بفرد ريحة باركت لي باركت لي سليمان جلا ومستكن والساهر والباطل فيك سكن ملكتني مطلت لي يا الزمن وقلت لي من انتهاء بالامن ساقيتني ما بقيدك يحترم شافت جملة الخلاة بقلب شهدت لي بما جفاني بهم يا من لفلكي بفيدك سر جسدت لي سر النفاس سيدك بقلفاء من حمولي ساتر نفرتني بيت الفروج والسنن وسين والأملاك حسنت منن نبتني يا سبن يا سن من لحو مني مالي تسر هربت الهداء بما ربي لحن لقيت الدر وحتى لم يحرم وليس الأمراض صحة البدن وتحر به مخرج بيدن وليس الأمراض صحة البدن مخرج إلى الجنة التي وعد متقون لحق القديم الذي كان له بكرم الباقي القديم بلا مكن ولا غرور ولا سراج ولا آفة ولا كدر والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين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 يا ذا الوجود والبقاء والقدم يا ذا المخالفة قسم القدم يا ذا القيام أبدا والوحدة يا من قداد إليه وحدة إنك ذو القدرة والإرادة والحين والحياة والإفادة والسمع والبصر والكلام يا ماحيا بالمنتخى آلامي إنك خالق سميع سميع سلم السليم أجنا أجنا إفعال إبلي بنتم ديرو كسب زور فنا فوادر يا ربنا بالمصطفى سيفللو وبالذين بس إباحي مقل الله يا ربنا بجاهي عبد الله الحق شيخ عبد الله كسب شيخ عبد الله شيخ عبد الله كسب شيخ عبد الله لحد يا ربنا بشيخي عبد الله لحد كسب سري سالوس نواجه لم يكن الأحد يا ربنا بشيخي عبد القادر وبي شعيب معرفة القادر يا ربنا بشيخي عبد الصمد شيخ محمد مرتضى ما جاك سرين توبا كن بخير الكمر يا رب soppu Cerno Faati sa jeey jug leen màggal bàyyi Cheikh mu dawa balla mooy bàyyi say Cheikh awa balla maam Cerno Faati bàyyi Cheikh Abdul Xudoos maam Cerno Faati bàyyi Sëriñ Subayru Mbakke ku soppu naama daaru ku soppu Sëriñ Subayru Sëriñ Subayru Mbakke ku soppu Sëriñ Subayru ana waa kër borom daaru ana waa kër borom daaru jug sëñ Mbàkke orang tahu taaw ya, yu baax yi macam mën a jógal ma jóg dangaa yónni fu ma saar yónni iya, fu ma war a dem Mau njëgee sa kër maam sa maama ngi nii di nuyu nag xalifa Cheikh Soubayrou Mbacké man nag fi ma taxaw war naa fi taxaw ci ñaar ba ñett man Cheikh Ibrahima sama maam Cheikh Ablaye Fall boo demee njëgee kàddu ngaw la nga sama maam yi daan tekki kàddu gaa nga fa kàddu ngaw la nga koy wooye kon su bis ah dinaa sawar nag ci wax ci Cheikh Basirou li mu santee yàlla julli ci yonent bi gërëm nag waa kër baayam Cheikh Soubeyru Mbacke maam Thierno mi ufal baay mu ngi bëyti nee na mi ngi nuyu maamam yi toog Pape ak sëñ maaram ak mbokk ak képp koo xam ne moom la bokkal Cheikh Soubeyru ak borom Daaru te Alpha Ndiaye nee na lu yëngu li ko yëngal da doole kooku koo am na xarit. Cheikh Modou Seye borom tawfeex Cheikh Bassirou Mbacke nee na lu ñu la wax doyul yow yaay nijaayam yaa ko bëgg yaa ko jàpp tubaarkàlla macha allah te yàlla tax waaye soxna Ndeye Rama Sow bii Aliou Touba mbokk baayam soxna maanaam mi ngi jooy noppeeku. bàyyam Pape mi ngi toog Serigne Pape mbokk bàyyam abduhu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din amma ba'du kon ginnaaw bi la sant yàlla subhanahu wa taala julli ci yonenteem bu tedd ba sayyidina muhammad te la waxam jërëjëf Serigne Touba di gërëmaat sunu ñaari waajur bu baax a baax di may ñi nga xam ne si dañoo bi ni ñu ci am solo rek ñu di wéyal ci tomb yi ñu war waxtaan kon ma sàmba ñu door nekkale gaa yi ba pare ñu door a yeggale ndaxte ñii ñoo war a bi kon man bu nan sëriñ waaye du naan taalibe yi sëriñ bee tax waaw dañuy ñëw rek def benn baax waaw

ye ngaraw se maasya bu soobu seen basir jogal maagal ko bilaay walaay talaay ngaraw se maasya bu soobu seen basir jogal maagal ko bilaay walaay talaay ngaraw se maasya basir baatu laa ilaaha illallah gula xama gana gula xama gula basiro gula gisa gana gula gisa gula basiro سلنين باسيرو سواد غاج جمفنين باسيرو جنة لك صدق سلنين باسيرو سنو بك بك بجيت موي غياغ في غياغ في باسيرو ما غياغ في باسيرو man la nga waaye yow man yow laa ndaxte dañ ne ginaar ak i nenam lépp borom ginaar moom moom te kon yow yaw yaay bon yow borom ginaar kon maam Thierno ñoo ngi yeesuwaat bu baax a baax bin amee ñëwaat tasewaat fii comme ni ko daa tasee ca béréb bu mag ba daaru almonti ñoo lay ziar bu baax ca di dalal bu baax a baax gannaaw loola di ziarat sunu wëlëre sëñ Amsa Mbacke ibnu sëñ Jubeyru moom it ak sëñ Xaadim Mbacke ak sëñ Moustapha mu sëriñ Bass Anta Niang mi nga xam ne si ne moom la ñu duppee sunu sëriñ bi muy sëriñ Mouhamadul Basiru Mbacke di wax ne moom itam biñ ko siyaaree li ñu wax sëriñ Basiru Mbacke sëriñ Jubeyru li ko koy jox dane ko woon kii ay yaxam laa la laaj mu def ca war jàngal ko yar ko man ñoo tatagal teg ñu ci yoon bu baax teg ñu ci yoon bu mel nii kon sëriñ Moustapha ñu lay yóbbatee ci Cheikh Mouhamadul Basir Mbacke mu mag di sëñ Ban Bas Antaña di ko wax rek li mu defaroon ne ñun rëccuwul ko ndax ci defaram lan jaar ba mel nii kon ñoo ngi koy ziar te di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér gannaaw loolot di ziaraat Serigne Maram nga xam ne moom itam. nijaay la ci sëñ bi waaye mu jël lépp wàccee ko def ko ak taalibe nga xam ne mbokku taalibe yi di mbokku daara ji ñoom ñëpp xam na ne Magal Touba foofu la ñu dem ci këram nekk fa ak sëriñ bi waaye buñ fa nekkee de day mel ne sax yaatu gin fay am ak dal jàmm gin fay am sax mooy ëpp gi am suñ kër yi kon sëñ maanam ñun amuñu suñ sa fay ndax ñun dañuy wax ne de sëriñ bi rek lan bëgg te moom lan gëm muy sëñ Basiiru ku nu ko jàppal rek ñu jàppale bu wér a wér kon sëñ maaram gis naan jàppale ki nga koy jàppale ak tatagal gi nga koy tatagal kon ñoo ngi lay maanaam fendil suñu kóllëre ci yow te di la ñaanal yow itam nga yàgg fi loolu te wér ak loo man ren nga man lu ko ëpp loolu di ñaanalaat ki nga xam ne mooy sëriñ Pape Sock maanaam di ko tatagal baax a baax te di ko dalal baax moom itam di wax ne dafa ñoo defal lu rëy lu nu waroon muy daamar di nga xam ne sëriñ bi moom la njëkk a war nga xam ne ñun taalibe yi ñoo ko waroon a jaayante jënd ko mu nekk sunu mébét biñ ko daata yeggale moom mu mel ne dafa dugg ci xelam mu yeggaleel ñu loolu ñëw indil ñu daamar ne sëñ bi maanaam jëral bi nga di ci dox say soxla kon sëñ Pape defaloo ko sëñ bi ñun nga ko defal ndaxte sunu mbégte la sunu ndam la sunu tiitër la kon yow itam sant nan la bu wér ci loolu ak leneen li ngay jàppale li nu umpali sa digganteeg sëriñ bi te di la dalal baax a baax gannaaw loolu nag xam naa di wax ki nga xam ne si ne moom toujours comme ni ko Massamba di waxee rek du ñu jóg di wax ci moom waaye bu ñu doon wax ci moom ci digganteem ak sëriñ bi liñ ci xam sax fii ba suba du jeex waaye dañ koy dàgg rek ndaxte moom de li nu war ci sëriñ bi muy ci màggal yi di ci cant yi di ci gàmm yi nit yi tant yi lépp mi ngi ñu koy defal ndaxte maanaam buñ koy wax rek ñëpp xam na ko ci taalibe yi waa saxaatu daara yi ñëpp xam nañ ko muy Serigne Madoune Seye borom tawféex ndaxte moom sëy xoolu lu taalibe yi war a defal sëñ bi waaye lu nu mébét lu nu war indi lu mu rafet rafet rek bu ñëwee mu gën ñoo rafetle waaye nag du nu ko nangu ñoo ngi ci yoon wi rek sëy ñoo ngi jéemante rek di jaayante ak yow xam naa nag yaa nekkagul ci kanam waaye ci kanam de dana jaayante raw la waaw nañu ànd ah kon baax na waaye daal xam na adversaire lan la def suñu diggante sëñ jamono jii ndaxte ni koy solale bég nañ ci lool waaye nag buñ sañoon ñu ne di ko solal la noonu kon tey sant na la bu baax di kontaan ci li ñuy defal ndaxte ñun amuñu lu dul sëriñ bi amuñu lu dul moom moom lañ bëgg kon boo ñu ko jàppalee rek ku ko jàppalee rek mel ne ne rek jàppale nga ñu bu baax a baax kon sëy li lay ñaanal maanaam lu gën a kawe sunu njort maanaam yéene la moo tax mënuñ ca ak day nekk sunu xol rek kon yaa xam sa yéene tool yàlla na fa yegg ak mbokk yi yëpp ak ku ko yéene. di waxaat rek ci ki nga xam ne moom la ñu marineel bis bi di soxna Anta Sëy moom itam tey de nee na woon sëriñ bi baas bi mel na ne aw nitam rek nga ko defar waaye wax na dëgg ndax te bi ñëwee dañoo am. problème bu ñu teg sax nit ñi ndax kon sa euh, soxna Anta bég nañ bu baax a baax bis borom lay nuróo tuuti kon sant na la bu baax a baax ca di la dalal di la wax ahlan wa sahlan gannaaw looloon nag di ziar ki waral mbir mi tey mbir mi di sunu yaay di soxna Fatou Diop nga xam ne dañ naan féetum lii bu neexee nday jaay jàpp ca wàgg yàq moo jàpp ci wagg sëriñ bi jàpp suñu wagg ñu taalibe yëpp ban ñeme lii kon ñoo ngi lay ñaanal bu baax a baax soxna faat di ci boole waale nag sama waajur soxna Nubbe jógee ba Ndaam nga xam ne lépp lu ma nekk moom it ma nga ca ñu ñaanal bu baax a baax kon moom itam ñoo ngi koy sant bu baax di ko wax ne gis na sa taxawaay ah. kon di nuyuwaale rek Serigne Momadou Gningue baax a baax a baax moom itam di wax ne ku ñu jàppale la moom itam ñoo ngi koy jaar bu baax a baax a baax ak ki nga xam ne si ne sànq dama xaw a xuloog moom sax ci buntu kër bi ndaxte dama ne ko yow de yaay ñaareelu sëñ bi mu ne ma déedéet man maay aaw bi di Adja Ramatulaay Sock daan ne ma man maay aaw bi kon bu ma waxati ñaareel bi kon nag maa ngi koy jéglu bu baax a baax di wax ne Sock loo dund doyul ñoo ngi lay ñaanal bu baax a baax. nga yokk fi lool te ànd ak wér bu baax a baax kon nag ginnaaw loolu nag ñu jublu ci li nga xam ne si ne moo waral tey sunu teewaay di wax rek ci xam ne mooy ci turu daayira Saxaadu Daarayni bi yëpp ci liggéey bi di ko commencé ci Kaolack ci jëwriñ ju ñu wax naan Mor Talla Touré di ko wax ne gis nañ sa liggéey ak sa mébét ak ni nga taxawoo bis bi maanaam sant na la bu baax a baax ndax loolu lañ bëggoon. kon matale nga ko bu baax sant na la bu baax bu wér a wér di ci toppale ki nga xam ne si ne mooy daayira Dakar di Mor Talla Sock moom itam gis na liggéey bu baax. di wax ne ab taalibe léeg-léeg du nekk gun taalibe dina tàkk muy nekk taalibe day nekk ci li nga xool nga xam ne si ne maanaam day yaakaar ne loolu rek la war a nekk fekk nekk du loolu ndaxte sëriñ bi fi mu ñu jëlee maanaam. mu suñuy ndey ak suñu baay mënuñu ko woon a jële mu jële ñu foofu indi ñu ci lii lim ñuy woo nag mooy kaay leenu baax waaye yaakaar naa jëmm yu teew fii ak nii euh, ñu mel nii ñu tuddee leen saxaaratu daara yi texem adduna ak taxam alaaxira maanaam ñooñu noonu ku leen gis nii rek xam ne ñii ay gaa yu baax nan ay soxna yu baax nan te lii rek la sëñ bi na moo ci ñoon kon nag Mbàkke li ñuy def rek comme que dafa guddi ca parole yi xaw a bari xanaa dañuy ñaan rek nga dund loo dund doyul Mbàkke di la ñaanal bu baax a baax a baax di waxaat dayre it ñu jàppale waat ñu jàppale waat ma man sax laay wax ci sëriñ bi bu baax a baax a baax ñu jàppale ma man ci sëriñ bi bu baax ñu jàppaat ci sëriñ bi bu baax ndax sëriñ bi mooy sunu mbégte mooy sunu lépp ndax sunu jàpp ci moom mooy sunu jariñu mooy sunu defaru kon nag ku la si gën a jàpp rek moo lay gën a doxin

mbokk julit yi mbokk talib yi nu ngi leen di nuyu noo ngi leen di ziyaara noo ngi leen di ndokkeel lit ci bis bu tedd bu màgg bii nga xamante ni bisu cant la ndax ku ne xam na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ataxaddusu bi nicmatillahi shukurun yàlla bi mu bëggee ñu xam ko nit rek la اعينني اني جاعل في الارض خليفه كون نيت في ني نيت لا ني گم نيت لا ني ياكار نيت لا ني توب مو جالاني لا باتك كانم يالا غور جاب سي غور ني جاب سي غور ني ووتي شي احمد بامبا خادم رسول مو يوبن سيدنا محمد كي لولو نك سيرين شبيرو مباخما والبرد طيبو يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الى النكده سرين بشيرو نيغلي زيار نيغلي نوكيل تبيس بي لينا جانال يالا يالا نيو يالا ماي نو فك دي تي لو تي نيان لو نه يالا كو يالا نوم سرين بشيرو نك واخ لي تخ ما جوك واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم دا واخ ني وانزل الناس منازلهم نيت ني بو ني نيوي nañ leen jox seen wàccuwaay ñuy bëgg a wax ci jàmbaari lislaam ji kii nga xamante ni ci koñ bi la dëkk fii la fekk baax bi mu demee wuti baaxit bi mu amee fii la ko indiwaat di Mouhamadou Ñing di DG bu ITECOM jiite mouvement bu ñuy wax ASP nga xamante ni luy liggéey gox bi lu jëm ci gox bi luy taxawaayu gox bi lu jëmale gox bi kanam yëg Serigne Bassirou mii lool ndax damay wax ni nit ku la yëg ku ne mënatoo koo fay Mamadou Serigne Bassirou dani na jógal nga wonal ma mbooloo mi Mamadou Ngingue te loolu dinañ ci sawar lool ndax ñun ci délégation bii la ñu bokk. Serigne Bassirou nee na am na mbégte lool du tey jii rek nga njëkk a ñëw ci moom da ngaa yëkkati say tànk waaxu ba ak si këram ko wàcc waayam ndax ñoom kat fa tabaarakallaahu dañoo diis gann waaye wàcce seen bopp ndax man tawaadaa lillaahi rafaahu llah wàcce sa bopp ngir yàlla yàlla moo la yëkkati waaye bu fi diis ñëpp bala fi fi diis àndoog nit ñi nit ñi moom lu diis moom diis diig rek sëriñ Basiiru di ko woyof nee na nga dëkk ci koñ bi di kilifa ko sa tànk ñëw ba ci moom saafonteeg moom wax ko sa yéene sakku ci moom ñaan won ni ko fii la ju dëkk bis bii tamit nga ñëwaat ànd ak mbokk yi yëpp kii toog magam la di sëriñ Moustapha ñin ak sama xarit monsieur le préfet Oumar Sall bala nga xam sa da ngay dem ba ñun ñoo dem fa mu nekk ca barkee ji keroog lu ne defal nun fa tabaarakallah ànd ak gaay yëpp góor a jóoba ngi nii ñoom ñëpp ñu ngi nii toog bis bi rek tax leen a ñëw kon DG sëriñ bi nee mi ngi lay dalal mi ngi lay tatagal di la won ay mbokkam ñii ñëpp ci kaw xalifaama ngi toog di maam Cerno di magam di sëriñam di léppam mi ngi lay nuyooleeg ñi ci kaw ñëpp di leen wax ni kii mooy Mamadou Ñing ci koñ bii nag la dëkk ndax nag ku deful dara kenn du la wax dara ñun moom fa tabaarakallaahu danoo yore li gën li gën ci leenu nekk leneen lu waa yore it boo jàppee ni moo gën li nu yore li nu yore gën fépp muy alquranul karim sunu daara la nu yore waaye ku nu defalul dara kenn du ko wax dara kon Mamadou nu ngi lay dalal di la won ni koñ bi yëpp fa tabaarakallah ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla li nga yéene bëgg koo def ci koñ bi yàlla yàlla jàppale la ci yàlla yàlla defal la ci ndam defal la ci tawfiq fa tabaarakallah fa tabaarakallah kon sëriñ bi mi ngi lay wax ni xamale la ak mbokkam yi yëpp di wax ni nit bu amee njëriñ ñëpp ko war a xam. baadal asbala wa baadal basmala jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jaaraama borom daaru. jaaraama borom daaru. gàcce nga laama Serigne Bassirou Mbacke borom kaay leen baax. gàcce nga laama Serigne la famille Al Mbacké Soguen, chers invités, par ma voix notre guide bien-aimé notre sauveur Serigne Bassirou Mbake, borom kaay leen baax ah, gaynde borom daaru bàyyi Cheikhouna ak Mouminatou kii moi borom fetal bi borom mbir et ak borom taar bi l'ensemble des membres du Daïra Sahadatou Dareni, daaray Sopé Serigne Bassirou et Boustaanou Arifina vous souhaite la bienvenue et vous souhaite une très belle cérémonie que la grâce de jaaraama borom daaru suñu Serigne Bassirou Mbacke yàlla na fi yàgg te wér yàlla nga fi yàgg te wér Serigne Bassirou Mbacke yàlla na fi yàgg te wér Serigne Bassirou Mbacke yàlla na fi yàgg te wér Serigne Bassirou Mbacke yàlla na fi yàgg te wér Serigne Bassirou Mbacke dundal cent ans sans ordonnance Serigne Bassirou Mbacke dundal nee na moom day Cheikh Bass mii doom la ci moom Serigne la ci moom ba tax na mbolam ñi nga xamni ne ñoo di ay bokkam ñe nek lasar ñe nek dar Musti waye ñi nek Touba kenn ku ci nek serigne maram so taxalu sa kër di la joxañ sëriñ Basiru Mbàkke mii sëñ Bas na nga xamne sa bokk bop yi jàppe nañ la borom daru Musti rek lañ la jàppe borom daru yaay seenu borom daru Cheikh Bass na nga xam ne sa bokk yii ñu la bëgg lañu ñu la bëgg taxaw lañu ñu lay ñaanal lañu yàlla yàggal la ba tax ne mboolam ñi nga xam ne bokk yi ci wàllu ndey ci wàllu baay ñoom ngi di la ñaanal nga fi lu ma li ci barke borom Touba barke maam Thierno Ibrahima nee day ba mu gëstoo gis doomam di sëtam di Cheikh Bassirou Mbacke mii xelam dal na bu baax yaakaaram tàbbi na bu baax ba tax na day fii maaram soog a ngi maaram soog mooy wax nee na moom day mboolem ñi nga xam ne ñoom la am mbokk bi di ki nga xam ne mooy Pape Sow Pape Sow di ki nga xam ne mooy. Ah, Socé Diop ak ah. Ndeye Penda ñoom ñëpp ñoo ngi maase di leen mu jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaye nag noo ngi sant say gërëm day ñaan ngeen yàgg fi lool ci barke Borom Touba nun ni suñu xel waaye sunu yaakaar itam tàbbi na jërë ngeen jëf noo ngi ñaan ngeen yàgg fi lool te wér ci fii ngeen bëgg jëme yoon wi yàlla ko fi suñu borom yóbbu fii ngeen bëgg jëme seen liggéey yàlla na ngeen fa àgg ci barke Cheikh Massamba man de lu may ñaan dama ciy boole Cheikh Massamba kon day noo ngi ñaan Cheikh Bass mii yàlla na àgg ci jàmm ba fu mu bëgg mu bëgg lu mag a def mu def. suñ doom yi sëñ Bassirou Mbacké da nga xam moo suñ seddoo di wàkk si di bànq borom daaru yéntee ko nii lépp lu gën man di ko def suñ borom dana leen fay bi ñoo ngi leen na ñun ndey waa njégéej moom dong la ñu am suñ Bassirou Mbacké am njégéej nag boo ko waxee dafa yaatu lool ndax képp ku sant Sow képp ko sant Niass képp ko sant Diop képp ku sant Mbengue ci njëkk nga bokk délégation bi mel ni ne ku jóge bay ci xaxaam di Massa sa Diop ñëw na nekkal fi waa bay ci xaxaam te bay ci njëgéej la bokk ku ñuy wax mbay Ndiaye jóge ba Lassal bu jama ñëw na bokk ci mbooloo ku ñuy wax Ndiaga Sow mi ngi jógee Touba sëñ Maram nag bu ñuy wax lépp ci kàddoom la ndax mooy kilifa njëgeen ginnaaw bi sant yàlla ci julli cant bi ñoo ngi leen xamal na di di leen ñaan na sëñ Basiru mi di suñ doom na ko ñëpp ni sëñ Fall waxoon Senghor nee leen ko jàkk man nee leen ko jàkk te ko piis ku ko piis yàlla nga gumba ndax match bii kat mooy suñu lépp ci zaar ci bàttin nag jàkk ji ñu ko jàkkee nag du jàkk képp rek dañ koy dañ koy taxawu ci saay ak ci bàtti mu jaral ñu lu nekk nag jaral ñu suñu baret jaral ñu suñu deret jaral ñu suñu lépp ci barke Seydina Mohamed lépp lu mën ci lu baax daan daan ci jàpp incha allah te bis wane na ko ndax Ahmadou Seye mi ñuy wax nii di borom tawfeex di ndijaay ci moom ñun ñu maam ci moom ndeer ma soow mii di maam ci moom ante mii ñu tudd bis bi di par di marraine bi lépp ci famille njëgeñ ndax ñoo bokk ndey bokk baay suñu ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay maanaam soog bi jur yaayam maanaam soog bu jur maam moom maanaam soog ak njóob soog bu jur sunu yaay ñoo bokk ndey ak baay donc njëgeñ moom ku ñu xu la ma bëgg nag incha allah ni ñu ko yàlla def. ñu ànd ak moom rek dimbale ko ci te bañ ko ci taatagal ci dara dañ ko ci yàqal daal ndax lépp lu waay def sa bopp na moom kat mel ni na borom bi aar na ko ba pare ndax ku jub di jubal xamoo lu bon di góorgóorlu ci yoonu Sëñ Tuubaa dara mun ci yow dara ànd ak nag ay mbokkam ñuy ngemb ko taxaw ko incha allah fu mu jëm daan faaj wax ji nag mel ni na tey sax damaa xaw a damaa xaw tàng ndax sama njaboot dafay nekk di mbir mi see borom doofe moom may waxal moom may waxal man dama ci barkeelu rek mais moom may waxal te bu waxee dafa naan incha allah da xam ni lii ma wax dëgg la ci man asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala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 di gërëm seen teewaay yéen ñëpp ku fi góor jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di gërëm seen teewaay rafet na te itamit kontaan nañ ci lool ah, bi nag faw mel nii parce que li élagement fu si daan wax rek dafa ala daw kon faw mel nii ndax lépp Serigne Touba la te ñun ku ñu xam-xam ne Serigne Touba ke koom dong lañ am Serigne Touba kese ñor kon bu ñu wootee ci Serigne Touba donte tuddeewuñu bis bi sax dañuy daal di daw ba bàyyi suñu daal ndax Serigne Touba ñun Serigne Touba rek a ñu ñor seen bas jël bés bi duppee ñu ko nee nañu nag ñaar yi ku fonkul nit du ko defal jël nit tuddee doomam baa nga am sa bés nit kooku boo fonkul nit ki doo ko def Serigne Bass Mbacke la maa ngi lay gërëm di jox sa wàccuwaay di la ñaanal loo soo séntu sa bopp rekk yàlla nga dem fu ko suuf téeméer bi jug yàlla nga teg fépp fu sa maam tegoon tànkam yàlla nga fa teg sa tànk yow Cheikh Bass sant naa la gërëm naa la waaye samay mbokk yi tamit bàyyiwuñ ma benn yoon chaque jour dama koy faral di wax man képp ku may gërëm sama bàyyi laa ciy jiital ndax moo ma tànnal yaay ba tey népp nu ñu mel rek ñu mel ko ndaxte baay mooy tànn jiw ba tax na lépp lu ci jëmmal bu saxee daal di doon keppaar comme jërëjëf sama baay Cheikh Fadal Fadilou Sey sant nañ ko gërëm nañ ko ndax moo ñu tànnal Ndeye Rama Sow mi nga xamante ni tey moo ñu meññi di gërëm sama taaw néeg dañ na tegale bu jiitoo ci bu jiitu la Medoune Sey borom taw feex bàyyi woo ñu benn yoon julli jugee nga jóg tey yaa jiitu ca kanam bés bi chaque jour yaa ko doon dëgmal ak di ko dëggal waaye tey dañ kaa gën a wane ndax ñaari yoon nga tey ci bés bi nijaay nga ci Cheikh Bass waaye mag nga yi tamit ci ki ñu tuddee bés bi ba tax na ba ma gisee Yacine ba sax dama yéemu sant naa la bu baax a baax a baax yow mel ni say borom taw feex ndax taaw nga bu dul taawee fuufee nga ñëpp jaboote nga ñëpp téye nga ñëpp lépp loo ragal yàlla boo ko gis waaye loo ko it yàlla na ko daal waaye tamit je peux pas remercier technique bi sans remercier l'homme cher de ma muy kan sama borom moo ma teg tey fu ma mënti toll rek moo ma fi rek ndax nee na jigéen lu mu mënti mel rek te amul borom kër defe naa ni valeur bu daal di bari kon boo rëggee sama sant sama sëriñ maa ngi lay ñaanal yow tam foo bëgg a yegg rek yàlla na fa yegg ak sama jëkkër yow yëpp nga xamante ni tey dañoo def délégation daal di teew ñëw jëmmal ma ndax jigéen bu woote nga xool délégation mu fees loolu ki góor xamal ni ay borom këram sagal nañ ko sant naa leen bu baax yéen sama ay borom kër sant naa leen bu wér a wér waaye tamit di sant sama borom soxna ki ne ngay ndax seddaay bi nii waroon naa mën a dem tëdd daa di ne ah naa du ma ko dimbalee rek na xale rek waaye bu ma duggee ci say loxo ba tey bàyyi woo ma benn yoon géej ñoomam bu sogee

borom këram saam da koy faral di wax Soda sa xarit dëgg la saam yaa ñu boole uuf njaboote ñu te amoo ci man différence entre man ak Soda ba tax na ni ma mel ci Soda a mel yéen ñëpp gërëm naa leen sant naa leen waaye tamit bés bi képp ku fi ñëw sant naa la gërëm naa la nday Fatou Sey sama man mu ngi nii sama wet soog mbayal gërëm naa la yéen ñëpp suma ma limee damay juum li waral bés bi rek kom ci la ñuy daal di jublu muy kaay leen baax ku bëgg baax ci nga bokk ku bëgg lu baax ci nga bokk képp koo xamante yi tamit danga safaanoo te bëgg a baax ñëwul wuy sëriñ ba kaay leen baax ndax baax rek a ko tax a jóg kon képp ku bëggul baax rek yaakaar naa ne war nga koo war a mën a wuy si ci bësam Cheikh Bass neewoon naa la bas bâche bi tuut na lool ngeen ma soxna Anta yaatul la de 30 mètres déwén bâchal mbedd bi yëpp waaye te xam ne dafay fees yow loo woote mu fees yow loo woote mu fees ndaxte sa maam liggéeyal na la ko ci Mbàkke waaye sa maam liggéeyal na la ko ci njëgeen bu soobee yàlla yow loo yuutu lu nekk di ko daal kon Cheikh Bass dégg na laa nga muy gën a yaatuwaay ndax loo ya lu mu yaatu yaatu daal di fees incha allahu rabbi kontaan nañu sant nañ mbooloo bi fi amaani la maa ngi ñëw nag di nuyoo si di jiital ci kàddu gi mag ñu baax ñëw fi fekk Mbàkke maa ngi leen di ziyaare. sëñ Cheikh maa ngi lay bu baax a baax. si Cheikh Bass Bassirou Mbacke maa ngi ziare bu baax a baax di ziare sa waa kër yi yëpp ci bu fi fekk di ziare yi sa xalifa sa xalifa maam Thierno ma fi fekk di jiital ko ci ziare bi lool ndaxte ci moom laa waroon sax njëkkee di nuyu it imaam ñoo fekk yëpp ak mag ñu baax ñoo fekk ñëpp di nuyu sa mag ak sa nijaay ak sa xarit sëñ euh, Medoune Seye waaw nee na mi ngi nuyu Serigne Medoune Seye borom tawfiq nee na mi ngi nuyu it marraine bi nga xamante ni dégg na kàddu yu rafet yi mu fi wax léegi te mu jagleel ko bis bi mi ngi nuyu waa koñ bi yëpp ak ñi mu fekk ci baas bi yëpp. Mm, moo xam mu xam seen tur ak mu ñàkk xam ndax ñoom ñëpp ay dëkkandoom lañu ay mbokkom lañu yi nee na ngi nuyu it monsieur Sayer Mangane mi ngi fi fekk di rakkam di xaritam. bis bi tey nag bis bi dafa nekk moom bis bu mu fonk lool ndax lan ndax xaritoo gi nga xam ni. seq na ko ak sëriñam ak xaritam wasilaam sëriñ Bas Soubeyrou te it mu koy sant te it mu koy sant ndax leen ndax moom day loo xam ni min ci tànk yi ñi nga xam ni lépp lu muy def xam ni ay maamam ay magam ay papaam ci tànk yooyu rek la ñu nekkoon teeg tànkam mu ñëw ci koñ bi xam ni dañu koo bokk fi liggéey boo xam ni surtout ci ndaw ñi bi sëriñ Mamadou mi ngi lay tàllal loxo ñu àndandoo nga ñaanal leen ba lépp loo xamante ni bëgg ko ci koñ bi ak ci xale yi ak ci jigéen ñi lépp ak yépp ak yemb yemb te xam na ni boo ci ñaanee jàpp ci loolu dina am kon bi nee na ñu ngi wax ni kontaan nañu ci ñëw bi di mi ngi ñaan yàlla nga am lu kowe sa njort ci bis bi bis bi di dem di dem ba nga xamante ni marenam bi nii mu ko waxee kon bi yëpp ñooy àndandoo bis bi nekk bis boo xam ni bisu koñ bi yëpp bisu dëkk bi yëpp lay doon ndax Serigne Bass doxe na ko wone na ko lu xew rek Serigne Bass jël na tànkam doxi ko lu baax rek lay wax te jub rek lay dox kon daal ñu ngi lay wax nii la. bis ni ki tey daal ànd nañoo ak yow ci sa bis bii bëgg nañu nag nee na bëgg na lépp looy dugg mu yëg te dina ñëw dina ci jàpp dinañ ci teew ànd ceeg yow ndax nee na ñoom lu ñu am rek sëriñ Touba moo leen ko moo leen ko gënal. nee na rikk nag bi ñu xamee sa taxawaay ci loolu. ak xam fi nga bokk te xam ni nag fa nga bokk. nee na loolu kilifte yoon wi ndax sëriñ bi bi muy tukki kenn rek la wóolu woon dégg ko njaboot muy sa maam maam Thierno Birahim kon nag nee na mi ngi lay sant di la gërëm nee na bi nga ko boolee ci bis bu mel nii wasalaamaaleykum wa mag daan takkaay xale nii rek lañ daan def gis si ndey gis si gis si dëkkandoo gis ñëpp ñu àndandoo yor ab xale lii rek kon ab xale la kon nag boo naaguwul ci xare bi rek yàlla mën naa dogal xare boo dugg rek mën nga caa am ndam noonu nag motuñu ci yow seede ndax tax motuñu ko ci mooy dañoo bokk yow ndey ndax ñoo bokk dëkk bayti bayti mbasin ak bayti xaaxaam ak bayti njum benn bopp lañ man bayti njum la sama ndey dëkk ak bayti xaaxaam ma soo demee xam na li ma koy wax sama juróom-ñaari maam yëpp ñu ngi dëkk bayti kon ci jigéen ci la bokk waaye nag tey taxawuma fi kasketum jigéen dama fee taxawee kasketu borom dara moxti kasketu sëriñ Subayru laa fi taxawee kon côté njigéen moom maarama ki bokkam ak pap wax nañ te lañ cee wax ba noppi waaye kasket bi nga xam ne daal moom la ñu fi indaale woon maag sëriñ Moustapha mii bi ñu jógee Daaru Moxti mooy na ngeen xam ne daal yéen mbokki sëriñ Basiru ñun ñi di bokki baayam di ay magam am nañ ci moom mbégte ci yar bum ñu wan am nañ ci moom mbégte ci tegg ñum ñu wan am nañ moom mbégte it ngir yoon wi jaar de amut lenn loo xamante ni nii lu ñu naqari ci moom la man day wax fa dëgg yàlla bu ma soxit naa ila ma alim naa damay seede rek lu ma leer mooy moom mi ne deful leen lu mu dëggu lu mu fanaanoo xam naa ko lu mu yendoo xam naa ko ah. te jàpp naa ne it li ma wóor wóor ma mooy li fii mi ngi am kilifaam yii wóor na ma ne du ma mas a def muru mukk dana ma def am am subi su bayróom dana ma def magam dana ma def kilifaam ah. ndax kat encadrement lu baax ci nit la ma lu baax ci nit la parce que bari nit koo xam te ne fi ngay jëm ñàkkoo faa yegg te la ko waral mooy la la dar waaye moom nii de mag ñi ma gis ñu dar ko ku mel ne maaram mi li koy digal ak ku mel ne paam yaayam jee ak ñi nga xam te ñoo ko daral li fiit mi ngi dégg seen ndigal yoon wi mu jaar bu ko wàccut lu mu yor ren bu déwénee dana yokk wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi kii nga xam ni moo fi eh, xalifa sëriñ Basiru Mbàkke maam Thierno Mbacke bu sëñ Duweeru Mbacke ñu ngi lay nuyu di la ziar di la recevoir waay di am mbégte ak xol bu ci gis la ak fekk la fii ci bërëb di nuyu sëñ Moustapha di nuyu sëñ Xaadim Mbacke bu baax ku ñuy gis moom ay baaxam ci lu bari di nuyu. sama nijaay ji toog Cheikh Abdou Fatim sunu maam maram ak sunu soxla nekk si gannaaw di sëñ bi euh, Mohamed Ñing di am mbégte ci jotaay bi ak ci gise bi di nuyu sunu xarit sunu wëlëre sunu soppe monsieur le maire Mangane mi nga xam ne moom ay at daanaka moom nag moom daa mel ni moom bisu sëñ Bachir rek laa ko gis at mu jot daal ci waxtu bi yàlla dana dogal ñu gisee kon yàlla na loolu yàgg am nañ mbégte ci gis la kontaan na ñit ci gis la loolu nga wax dinañ la ci tontu léegi soobee suñu borom Ah, ni ko euh, buur waxee muy buur tawfeex ci tàmbali waxtaan bi dégg naa mu ne soom bi soow dolli na ko sakkan waaye dollu ko weexaay tax dox cee fekk man na dama naan def soom bi soow mën na koo dolli caftan waaye weexaay du ko ko yokk tax ko cee fekk sunu borom bi mu ñu indee fii ñun ñëpp ci yam nag jaaw ko dong képp rek moo tax mu dem képp nag ci yam amul ma sàmm amul ma dem ñu fiy toog ñëpp ay jaam yàlla la koo mën a doon jaam yàlla dong yàlla rek moo fi nekk yàlla rek moo nekk wante ci jaamam yooyu nag da cay tànn ay jaam nag jiital leen waaye li mu wax mooy lan jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ndax suñu borom mënoon naa def kenn ku nekk ci ñun booy ñëw fii ci àdduna da naan cëpp rek ak si geesu sa borom xool ku nuyu ko dem waaye defu ko ku ci ne dafa am fu la jaarale ci ndey ak ci baay pour wan nañu foofu ñépp ñëpp ku ci nekk ci ñun lenn rek la ñu war def muy lan ànd ndax mënuñoo ñàkk bañ a ànd moo tax mu boole ñu ndey baay mag nijaay dëkkandoo lu ci nekk rek. ak bokk la lu ñu bokk ay mbir nit nag bu ñu bokkoo dañoo war a ànd te ànd nag dafa am ay sart yoo xam ne ñoo koy doxal li may faral di wax rek dugub ak gerte ca àll ba lañ bokkee waaye àndewuñu foofu ndax ci àll ba day boo fa demee dugub daa yenn yu doomam gerte uuf wala mu ay doomam waaye bu ñu bëggee ànd kenn ku nekk ci ñoom daa am loo nangu am loo bàyyi am looy muñ ngir mën a ànd ak sa morom ku ci ne war a la wax ak na ngay jëfe bokk koy doxee sa morom ku ci nekk ci ñoom daal li nga njëkk a def mooy lan ku ne daa simmeeku wan sa bopp ne sa morom ne man nii laa mel gerte simmil la ko ëmboon muy xottu wa waaye dugub moom it sim mi mbubbam ba mu sol muy jox wax ndax lan ku ne daa bëgg ànd ak morom kon ku nekk am na loo bàyyi waaye ku nekk dina am looy nangu dugub day nangu na mu dóor koy kuur soq ko ndax lan bëgg ànd ak gerte waaye ba mu toppee ci looy daa nangu ànd ak dugg ci machine ñu wal ko ba mu doonub sunguf tëj ko ndax lan bëgg a ànd gerte waaye gerte it nangu na la mel ndax moom nangu nañ ñu teg ko ci taal ba saaf ko ba mu xonq mu koy muñ ngir bëgg a ànd ak waaye nangu na it nag machine boobu dugub jaaroon moom it mu jaar fa ñu wal ko ba mu doon dege ngir lan bëgg a ànd ak dugub waaye itam dugub nangu na it ñu dugal ko ci bleget wërale ko ba mu miir. waaye teg ko ci inde nag ba mu suus tàngoor bu metti waaye nangu it ñu boole ko leneen loolu euh, sàlli ñi gën a bëgg waaye it nag gerte nangu nañu dugal ci cin mu fay bax ba xel di diw tàngoor ndax lan mën a ànd ak dugub nga ni kenn ku nekk ci ñoom daa am loo bay am loo nangu am loo muñ moo tax ba ñu àndee ñoom ñaar ñenn sàlle ni xam nañ luy baase tere baase sàlle ni moom ak ndaw ku ndaay xam nañ ko bu baax kon xam na ànd boobu ñu ànd ku ne dafa am loo bàyyi am loo muñ kon ni ma bëgg wax foofu rek mooy kenn ku nekk ci ñun war ngaa nangul sa morom ay ayibam te mu ko ko te jégal ko moom it mu nangul la ko waaye ku ci ne ànd ak sa morom ca nu mu gën a rafete waaye fii nag dëkk na bi dafa des ndax dañuy ànd te ànduñu maanaam dañuy booloo te mbooloo dafa amul solo ndax mbooloo bu ko ay nit defee rek day am jamono mu tas ndax mbooloo moo gis dana tas dañu war a bennoo pour ñu mën a bennoo nag kenn bu nekk ci ñun dafa am nu war a doxee jéemale ko ci morom dëggu ci waaye sénégalais da moom mën na laax waaw ci kaw sëgg ci suuf na déet te wàññiwul ko dara kon ndey ku nekk ci ñun de war naa bàyyiwaat xel ne war nañu mën a rafetal nag loolu ci jikko yi loolu nag liggéeyu ñoom sëñ maam Thierno Mbacke yii la ñoom sëñ Bass Joubert ak ñooñu ñoom seen liggéey la defaraat nit ñi ci jikko yi yar leen ci jikko yi ba ku ci nekk mën a jikko yoo xam ni dana mën a rafet jéemale ko sa moromu doomu aadama maanaam li ma bëgg a foofu mooy yor jikkooy karab karab na mu duggee ci cin li ni ko buur di waxee loolu la ci génne wàcce ndax bu muy dugg daa xonq waaye bi muy génn nit daa xonq waaye fii bëri na nit moom mu gaaw a soppeeku lool ci lan amaana xëy na li mu tuddee dara la wala lu mu tuddee am-am wala mu tuddee mën-mën loolu lépp nag lenn lu ci dara nekk jaamu yàlla dong am solo tey jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi bu ko bëggee jaamu yàlla ci jaamu mi nga koy jëmale. mooy nag dimbali jaamu ñi ñu ko sëñ Zubair yi sëñ Bas mii di ko defee ne leen kaa leen baax kon moom mi ngi jaamu yàlla ci jaamam yi kon yàlla na yàlla ak àggal ko ci lool di sant ñëpp di la wax Bas amat nañ jot daal ci teew fii di la wax ni daal yoon bii nga jëm ñun de am na yàq yi ne da nga àgg ba sës ñun ñii nag ku ci nekk liñ ciy def bu rëyut ndax yow sa bopp loolu say mbiru bopp la suñu borom a ko def xanaa kay dañ naan rek sànni moom sànni luy naaw da cee gën a gaaw te nag yow sànni la mooy sànni luy naaw rek dangaa ko sa ci kàttu di jéggul ñëpp di nuyu suñu nijaay ji Abdou Cheikh Abdou Fadim Sow mi ah monsieur le maire la la ma la waxoon daaw rek moom laa lay waxaat fii Serigne Bachir mii nu ko jàppal nu jàppal teew daf koo jàpp bii mooy ñeent wala juróomi yoon yoo xam ne su ma juumul ni daje fii ci bâche bi man carotte la nu ma duggee ci rek la ma la waxoon daaw waxoon la ko daaw jéeg ba léegi maa ngi toog di la bu eh, eh, mel ni lambaay ku sopp Serigne Touba. Seex Bamba daal di ñaan ci barke diili di Yàlla may bi kulli jiili sama ma neena may xaadim rasul bi isodaani may ram xarnu bi ani niraani ku sopp Sëriñ Basiru ibnu sëriñ Zubeyru Seex Bamba daal di ñaan ci barki jiili ni yàlla may saa fi mu kullu ji yóbbu sang ci sëriñ Saaliw ñibbi na yaa salaam Saaliw woo amul yaa bëgg sëriñ Saaliw woo amul morom sëriñ dunu yaa bëgg sëriñ Saaliwu amul morom yaa sopp sëriñ Saaliwu amul morom ku sopp sëriñ Basiiro sa loxo yi ca kaw gaynde borom daaru muxuti amul morom gaynde borom daaru muxuti amul morom ijan salaamatan tuddoom yaa يا ولي يا لفي دار سلام بامباي سلام أحمد بامباي سلام أحمد بامباي سلام بامباي سلام سنبسيرك يا سوبو داناني داناني داناني sëriñ Basiru loxo ca kaw borom daaru billahi borom daaru sëriñ Basiru ku ko sopp na nga وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير حديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور معدساتها وكل معدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار عصنا الله من النار جناو بن سنتي يلا جل تيرنتام صلى الله عليه وسلم لسان سنيا كارتي قالك شيخ أحمد بامبا خادم رسول دينيان السرين منتخى مفنك السرين توبا سنو برم ياكل كفلول تبيرل كفلول di ñaanalit sunu bunt sunu yaakaar ci Serigne Touba di Serigne Abbas Mbacke mi fi nekkal mam Thierno ibrahim sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal bu baax tamit Serigne Sidi Al Maxtaar mi nga xam ni moo fi bàyyi ko yàggul yàlla na ko yàlla tasareeg liggéeyu maamam ndax xam nañu ni bu baax day ku maamam gërëm la yàlla na ko yàlla dajaleeg mbégte bu sax ba faw waaye am nañ ci yaakaar bu baax المطلق لكل من بها تعلق النجاة من قدر الدنيا وفي يوم النجاة كأجت من مجنا أدنى كأجت من مجنا الآخرة جوكو نكوتون ديكو أجي جسرين توبا رجيمت ويدا نكون خليفة بسرين توبا سرين توبا تنون كو ديكو لغير تبير روليت ما نجيز ديارة بباخ سما كليفة سرين بسيرون باكي أنتن يان بمام تشارنو برايم دامل دارو مختي li di mom mu yëkkati defal ma loo xam ne kenn amu ko yabal taawam yabal njabootam gépp ñu ñëw fii di Serigne Moustapha Mbacké di kilifa ak baas bii nu nekk di ko nuyu bu baax di teg nuyoo loxob Serigne Bassirou Anta Niang ci loxoom mu tegal ñu ko ci loxol sëriñ bi. naka noonu it la ñuy nuyoo Serigne maam Thierno Mbacké mi nga xam ni mooy xalifab Serigne Soubayrou di sunu xalifa di sunu lépp di ko ziyaara bu baax. comme ni mu ko waxee rek dul woon ak baay bi di nday di ndax ñun ñi day buñ ñu ne woon aca tey njëgëj lañu jëm te yaakaar naa bu ñuy dem ñooy bokk fu ñuy oto bu ñuy dugg kon Mbàkke ñoo ngi lay ziar bu baax di ziar bu baax kilifa yi nga xam ne ñoom itam ñoo ànd ak ñun liggéey bi di kilifa yëpp Mbàkke Mbàkke yi nga xam ne ñoo fi nekk bàyyiwuma kenn bu ma la nuyoo nuyu Serigne Modou nuyu Serigne Mouhamadan Serigne Amsatu Mbàkke moom itam ak sëriñ Xaadim Mbàkke Kamal nuyu naa bépp kilifa bu nekk ci baas bi noonu it la ñuy nuyoo sunu lépp di soxna May Mbàkke mi nga xam ne Serigne ma Massamba mi xalifa Serigne Massamba moom soxna May mii mooy taawam bàyyi léppam ñëw teew fi kon mel na ni Serigne ma Massamba mel na ni Serigne Massamba mi ngi ci sunu biiru baas di ko nuyu bu baax soxna Baali Mbàkke mi nga xam ne moom itam sunu lépp la di sunu xalifa moom itam di ko nuyu bu baax ci teewaayam ak rakkam yi mu àndal soxna aji soxna astu soxna sooda bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ñaari soxna aji yëpp ginnaaw loolu it di nuyu Serigne Maram Sow ndax mel na ni ni ko Serigne Pape waxe ñëpp waxee ko noonu euh, moom mooy ki nga xam ne mooy kilifa soogeen tey fii ñu toog ci baas bi kon suma ma ko nuyoo mel na ni nuyu naa askanu coogeen bi yëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn ndax turam day matale ci soogeen gi yëpp muy moom mii Serigne Maram ak sëriñ Pape Sow mii nga xam ne am na lu sàmb léegi ci wàllu daamar sëriñ Pape xëy na moo dóor bii bu njëkk bi sëriñ bi doon tollati ko maa ngi ciy ñëw ma koy nuyu bu baax di ko gërëm moom itam di sunu ndijaay di sunu xarit di suma lépp comme ni ma ko waxee boo ñu fekkee sax dañuy mel ni maam moom ay morom waaye sëriñ Maram yéen waa askanu coogeen man awma seenu fay sëñ Medoune li gën a doy waar sëriñ Maram mii mook Serigne Pape Soog ak ñoom soxna yaay Soog ak soxna Mati dañoo dajaloo ca kër ga taxawalal ma fa daayira bu mag jox ma ko ba fii may waxee yu daayira ba amagul tur bañ ma nee turu daayira bi dama ne leen lu rëy lu rëy rek ko koy fay ndax ñoo xam ni xëy na kenn ku nekk am na fu mu bokk waaye cofeel ak deret tax ñu booloo liggéeyal la liggéey bu toll noonu daayira ba biñ ko taxawalee yàggul waaye mbooloo ma kenn xamul nu mu toll ndax bi ñuy ñëw tey jël nañ oto bu mag ba pare dolli ci ay oto yu ndaw yu baree baree baree bari ma leen di wax ne leen tur bi ma leen di jox ci biir bâche bii laa leen koy joxe te jàpp leen ni mooy tu daaree ni bi ñu maam Cerno Birahim dégg mu am fa Ndar am Kaolack am Dakar am Touba muy Touba bi am na ba Kédougou ba Tamba ba fépp ci Sénégal tey jiitu tuddee naa leen kon daayira tu daaree ni li ci des nag la ma waxoon ca biir laay waxaat ku ànd ak kilifa doo leen jiitu da leen di jiital kon dama leen di jiital topp ci seen ginnaaw ndax ñun yoonu Mbàkke doon kilifa am kilifa dañu koo gënal di nuyu bu baax sama xarit sama lépp di directeur sëriñ Mouhamadou Ñing ànd ak préfet ànd ak rakam ju baax ji wala magam ju baax ji muy koo xam ne sëñ Medoune jëmm ju baax moo toog nii tey nit ku baax yëkkati ay tànkam ñëw wëj sama kër xamal ma ne ma damaa séq ak yow koñ bi séq ak yow mbirum Serigne Touba ne la ni li ma indi ci yow mooy liggéeyub Serigne Touba wax ma kàddu yoo xam ne Serigne Touba seetlu ni kàddu yooyu dama ko téye ba fii may waxee ak yow Serigne Mamadou ne la ni jàpp nañ la te Serigne Touba tax. ndax ñun Serigne Mamadou dañoo kenn rek lañu am muy Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ku ko jox sa lépp di jox la sunu lépp ñun Serigne Touba képp lañu am. te fi nga teg Serigne Touba ak sa doxin bi ndax xam nañu li nga gàddu ci responsabilité téye la ci base trent minutes xam nañu loolu yombut te ba nga toogee ba léegi nangu woo jóg jox ñu sa lépp sant naa la gërëm naa la. dégg naa ci yow bu baax a baax te sama kóllëreeg yow incha allahu rabbi ni ko ñëpp waxee ab mbàkke mbàkke jërul wax ndax xam nañu Serigne Touba xam nañu ak waaye am njëgëj njëgëj moom deesu ko jam naa ni kon baax na lii ci des ca kanam la maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm jël na alalam def ci jël na njabootam yëpp jiital leen ñëw ànd ak kon Serigne Mamadou bégg naa ci yow bu baax dina ñaanal bu baax liggéey bi nga xam ni moom la le président jox yàlla na la ci Serigne Touba defal ndam na nga ci am ndaw lu kawe sa njort yàlla na la yàlla taxaw bu baax a baax a baax ci ni nga taxawoo liggéeyub Serigne Touba bi di sant bu baax tamit Serigne Sayer Mangane sama xarit sama wëllëre sama lépp comme ni mu ko waxee ay way juróom la woon ba ci ñun ba dëgg ni daaw ñu dippee woon ko bis bii muy ànd ak ñun bis bi di ko sant bu baax di ko gërëm di ko jàpp bu baax di ko wax ne ñun moom jàpp nañ ko bu baax te jëmm yàlla rek tax ak mbokk ndax Serigne Sayar daanaka lu bari bu may jóg bu ma woowee oto day ci sol gasoil yabal ko Dakar mu fekk ma Thiès yóbbu ma ma dox samay soxla ba yeggat delloo ji ko ko amul benn cër bu ko suñu borom dénk bu mu mës ñëw di ma ko kon Serigne Sayer maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm maa ngi lay ñaanal yow itam suñu borom defal la ndam ak tawfeex ci liggéey bi nga xam ne moom nga jublu yow itam noonu it ndax wolof day wax ni mujje bu dul mujje la te ki nga xam ne daanaka jërul ma di ko tudd ndax boo nee Serigne Bassirou Mbacke rek tudd nga ko muy Serigne Medoune Seye borom tawféex ñi xam dëgg xàmmeetuñ Serigne Bass ak Serigne Medoune Seye borom tawféex soxna Anta Seye lii la Serigne Medoune Seye defal ci man mii la ko njëkki Baye As mii toog daf maa tuddee bis te place Agora ca mairie ba ma ñëw nuy si sama maam soxna Adja Ramatoulaye Sow maa ngi ñëw ci moom toog di waxtaan ak moom sëriñ Medoune yegg si jógee soowu sonn lool ne ma yow góor gu ñaaw loo fi def ma ni kaa ah, man de dañu maa tuddee bis ma jaaxle lool ñëw fi nag di di mu ni ma bismillah damay ànd ak yow génne bépp 4-4 bu ma am keroog liñ jiital ci 4-4 kenn xamul nu mu toll mu ànd ak man def bi leen ne sëñ Madoun Seye tawfeex mooy ñëw kenn gëm ko ndax xat gu mu xat tey mu nangoo bàyyi yitteem ànd ak man ci bis boo xam ne sama bis la ma kon moom damaa def ni boppam man su ma la def ni sama bopp rek ko réew ma te Serigne Medoune mënis na maa ëpp at mënis na maa jiitu ci àdduna mënis na maa ëpp xam-xam mënis na maa gën a jaamu yàlla waaye ngor ak jom nit du ko ëpp ci àdduna lii day loo xam ne man maa ko moom amul ndey amul baay amul maam amul kenn jom day loo xam ne dama koo am amu jëm ak du du dara waaye dama ko dama ko dama koo dama koo doon ñaari askan yi ma jóge muy Mbàkke ak Joor amul fenn fu ma ci war mën a doon de ñàkk jom kon sëñ Medoune képp ku làqatuwul ngir sama jëmm man duma làqatu ngir sa jëmm féete gi nga féeteeg man te nëbboo ci dara na la biir ni man damaa féeteeg yow te du ci nëbb dara te incha allahu rabbi da nga ni lépp lu ma nekk yaa ngi ci waaye yow lépp loo nekk man maa ngi man maa nekk ci yow yow nekkoo ci man yow day da ngay koo xam ne man maa la jàpp te Sëriñ Tuubaa tax sëñ maanaam sëñ Medoune mii bi bis bi jege see la laataa muy des weer woo na ma këram yëkkati jasineer boo xam ne lim toll ci xaalis bi mu génnee takk bi damaa wax waa ji ko sëñ Basirou nañ ko ñëwal jeesneer bi e léegi léegi léegi léegi dimanche na ko sol avant première bi ñu doon def mu jëndaat beneen jeesneer joxaat ma ko ne ma ne ma ko def yëkkati ay nag ceeb dawlin vinaigre sax jënd na ko ak kon loolu foofu la yéene mën a yem ana soxnaam sa ñoom gis nañ bi may indi jumbo ji keroog di ko wàcce maire law béegi nii ñoom ñëpp dañ doon ree ñoo ko jëli woon ñoo ko jëli woon maag bàcc ma sàmba kon li may wax lu wér la xam nga ki la jëndal ba jëndal ne jumbo ci sa bis kooku sëñ bi nag wax dëgg yàlla bi jumbo na bis bi kon moo taxit sëñ bi maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm lii nga wax it ne jox nga ma oto dinaa la wax lenn de xëy na yow jox nga ma oto dina jaaxal ci ñuy gis waaye defal nga ma lu ëpp oto sama bis bi li nga ci def bu ko génnewoon xaalis di ki jënd na ay oto kon yow yàgg ngaa def ci man leneen lu dul oto te xam naa bu baax sa yéene ci man saa su ne soxna Adja Ramatoulaye Sow daf ma woon ne ma sa ñànkat yi sànni ko te nga dem ci borom tawfeex mu jox la oto man ko borom tawfeex du ma jàkkaarloo mu mukk naan ko nangam laa bëgg ku lay jox te loo ko laaj loo koy laajeeti kon bu xal yi décidé wu la ko ma la ko mës a wax loo wax def nga ko man toog naa ba tay du benn du ñaar nit taxaw ci sa kanam yëkkati palaab jàkka wala juma ne la lii damaa bëgg nga defar ko bi mujj ci sa néeg la ci sa jouru jàng yi keroog bi ñu génnee bilan bi ne temps la ci xaalis dafa dugg ci armoire am compté ko tekki taabal ci na ma sëñ Basiru jox leen ko te ñaanal leen nanguwut a ñaan kon ki tabax ay jàkk tabax ay juma yaa ngi soog nii kon du ma bàyyi may jàng ndax loolu mu def ci nit kon def ko ci mbokkam du dara maa ngi lay ñaanal na oto bi incha allah le 18 mars mom lañuy indi nañ ci bind borom tawfiq bu mag rek ndax la in sakartum la azidannakum alquran daf ni bu ngeen sante ma doon leen man lam yaskuri nas lam yaskuri allah ku dul santé nit ñi do santé yàlla wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis la delo wat li may wax lépp yàlla daf ni su ma leen wërsëgalatee waxtane leen ko ku ne xam na ni ben nit bu ñëw ci aduna doxal boppam ay soxlaam mën métier di am xaalis ni mu ko bëggee sans mu jaare ci doomu aadama amut ku fi ñëw nit la indi nit a la jàngal métier nit a la yor nit a la yar dépasse bi ngay dépasse sa kër da liggéey nit mu fay la ko wala nit may la ko kon lépp ci loxo yi nit la ko yàlla jaarale kon bu yàlla defee loolu ba pare ne sant leen nit ñi boo taxawee naan waru ñëw sant nit xamoo li ngay wax ndax yàlla mi jaarale lépp ci nit moo bëgg ñu sant ni kon sëriñ bi sey jërëjëf ndax yàlla nee na wa maa bi ni'mati rabbika fa hadis bu ma leen defalatee fu ngeen toog nee leen ma jërëjëf kon sëriñ bi dañ say jërëjëf def nga ci bis bi ba jeex ci di nuyu sa yaay sa lépp soxna Adja Ramatulaay Soog moom itam léegi daa féeteeg doomam ndax def ni ma soxna si moom mbasin riis yoo xam ne kenn xamul nu mel moom la ko jëndal yónnee ko ko lépp lu mu am moom itam def na ko ci bis bi soxna Adja Ramatulaay maa ngi lay nuyu maa ngi lay gërëm ndax moom day sama digganteeg Medoune Seye yaakaar naa tey jii moom dafa waroon na liggéey dimanche bi passé Ndakaaru dimanche tey bi dafa waroon liggéey Ndar mu ni mënumaa dem ndax damaa war a liggéey te client yi man la ñuy xaar te mënuma leen a bàyyi nit ñu jàggadi ñi yaayam woo ko ne ko bisub sëñ Basiru lu la mën di daal ba ma demee këram nee ma sama yaay lu mu ma yàkkut keroog alxames da ko fàtte kon sama digganteeg sëñ Medoune lépp moom mii la dafa mujj def annonce wax ni dimanche boobu na waa Ndar yëpp ñëw mu def mu def ay visitam dimanche bu dellusi bi muy suba mu fanaan ko ci man bu xëyee bañ a liggéey ku ñàkk ay millions yu bari ngir sa jëmm kooku ba la nee naa la jox quelque ci ay millions war nga koo gëm te jox nga ma ba tàyyi di sant bu baax sama marraine soxna Anta Sey moom itam li ma ko waxoon rek laa koy wax li ñu boole dafa bari deret boole nañ jikko boole nañ ngor boole nañ xarit boole nañ moom day sama xarit sama mbokk la sama lépp la na ma ko ko waxee woon képp ku yëkkati bis tuddee ko nit attan ngaa yëkkati doom tuddee ko ko te ku la jikkoom doy doo ko tuddee mukk sa doom soxna Anta ñun li bootu ci suñu ginnaaw dafa bari xalaatu ñoo def ci suñuy dund loo xam ne dañ koy réccu kon natt naa la ba xam yow yaay kan ma doog a yëkkati bis bii jox la ko li ma wax léegi rek askan coogeen moom dërut sax di wax ci yenn yi ndax Serigne Maam Thierno mi day wax saa su na xàbb yoo xam ne démb bu fa dem naan mbaaxu Serigne Touba rek waaye sant naa gërëm naa la maa ngi lay ñaanal bu baax kàddu yi rafet yi nga yëkkati ñëpp lu ko loolu man sant naa ci yàlla bu baax a baax a baax a baax yàlla na Sëriñ Tuubaa defal ndam yàlla na Sëriñ Tuubaa defal tawfeex lii mu ma jox léegi nii nii lam ma jox te yëguñu ko moo ko ëpp doole fuuf te loolu man maa ko noppiwaale waaye nag sant la rek sant la bu baax a baax a baax soxna Anta di sant bu baax soxna Yaasin moom itam lii ma koy wax saa su ne mooy dem kër ga fekk fa sëñ Medoune ñàkk faa fekk sëñ Medoune fekk fa soxna Yaasin ko dàq ndax dana la teral dana lépp loo xam ne war na ci keroog bi ma ko waxee bis bi la bàyyi yitteem yëpp ne ma damay ñëw kon soxna Yacine yow itam sant naa la gërëm naa la di sant kilifa yi nga xam ne ñoom laa nekkal ci dëkk bi bàyyiwuma kenn di ci tàmbalee ci préfet moom itam bi bis bi jegesee lépp lu mu am yëkkati na ko bépp service bu mu jiite yónnee nag ay ndaw tàmbalee ko ci commissariat wax leen lépp lu war ci bis bi nañu ko def muy hydraulique muy te muy muy euh, Sénélec muy fépp foo xam ne ay banqaas lañu yu ngànk dëkk bi war a jàppale ci bis waa croix rouge yaakaar naa ba léegi demuñu waa waa waa médecin chef tamit maa ngi koy sant bu baax ndax ay garab yu bari la fi yoon yónnee fi ay médecin ci ngoon ba léegi ñu ngi consulté di may nit ñi ay garab te jëm yàlla ji rekk tax ndax li may wax saa su ne ab sëriñ ak gouvernement ñoo yem muy sëriñ euh, Mamadou li may wax rek mooy ñun ak yéen dafa am côté boo xam ne dañ caa mooy ab sëriñ gouvernement du ñu may nit xaalis ndax boo mayee kii bu jeexee mu laajaat te ki nga joxoon te jox te ki nga joxagut gi yuuxu waaye da ngay yëkkati lu jariñ ñëpp nga def ko loolu moo waral ñun itam ñu dem fexe consultation gratuite ñi wopp ak ñëpp ñëw faju te kenn du fay bërëm loolu rek lañ mën dimbali suñu askan te yàlla rek tax ndax sëriñ Tuubaa day biñ koy jébbal suñu bopp nañ ne ko jébbal nañ la suñu bopp àddina alaaxira doog a ñëw kon ki la mënalu dara àddina gi alaaxira waxi nopp sëriñ Tuubaa nag nee woon nañu dinaa leen defal buur du leen dàq fu ndëkk buur du leen gën a neex lu muy lekk buur du leen gën a rafet lu muy sol te kuy rey buur teggi leen xoolal jàmbaari Serigne Touba yi yëpp ku ci sañse nga yaakaar ni am ministre la te fekk donc ab Serigne Touba keppa kon loolu ñu Serigne Touba defal ñu sant ko ci bu baax di sant mbooloo mi yëpp bàyyiwuma kenn di sant it daayira bi nga xam ni mooy soppe yi Serigne Bassirou Mbacke soxna Binta Yaali jiite ko ak sëriñ Modou ak soxna Mère Ndiaye ñoom ñi nga xam ne boobu ba léegi ñoom itam ñu ngi ci liggéey bi sonn ñu tàyyiwuñu waa saadatu daareen yi nekk sama ginnaaw yëpp di ko tàmbalee ci alaaji maam daam bi nga xam ni mooy jëwriñ général ndax daayira yëpp buñ dajaloo moom laa jiital ci seen kanam muy Kaolack muy Ndakaaru muy Touba muy Kédougou muy fépp rek ba Sàkkal ak Lazare ma fenn ak Ndamloo ñoom itam léegi lañ doon indi seen addi maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ci turu maam daam nga jot lil ma leen ko te ñu xam ne lii lépp ñoom la ndax ñoo ànd ak man di ma jàppale di nekk ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi Sëriñ Tuubaa ma leen ñoom itam li ma leen di wax sama mbokk yi nañ ma jàppal sama taalibe yi ndax ñoom la ma Sëriñ Tuubaa booleel pour ma liggéeyal waaye yéen itam jàppal leen ma sama mbokk yi ndax ñooy sama deret jàppaleen leen mooy jàpp ma kon bëgg naa mbokk yi ak taalibe ñu ñun ñu ànd bennoo jébbal lépp Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di sant bu baax a baax a baax sunu wayjuru jigéen soxna Fatou Diop moom itam li olof jox rek feccum li bu neexee nday jaatee ca mbaggee lii lépp moom la luñ ci am rek di nuyu rakkam yi moom itam soxna Ndey Rama Diop di nuyu Serigne Cheikh moom itam ba keroog bis bi la Cap ñaan e ñaan ñaan daal di ñaan ñu may ko mu nekk ak man ci bis ba fii may waxee ak yow boo fi sax da nga yaakaar liggéey liggéey kon Cheikh yow itam maa ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax di sant daayira yëpp di sant Serigne Alsane Diaw moom mi nga xam ne bi ñu tàmbalee ba léegi amul benn bu mu fu ne Croix Rouge di sant tamit soxna maam di yaay ci Serigne Cheikh Mbaye moom itam noonu la ko defee roñ waa mbokkam yëpp indil ma leen maa ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax di delloo njukkal bu baax bis bi ndax keroog bi ñu ko jàppee dama am lu ma niseroon lu rëy waaye olof day wax ni nit ki yaa moom sa wàll sa genn wàll waaye say genn wàll say mbokk ko moom bi ma niseree li ma niser am ku ma ni woon moom laay dippee bis bi far ma toogal sëñ Medoune Seye mii borom tawféex ñu waxtaan mu ma am na jëmm ju la yàlla booleel te kooku day loo masaan nekk mu nekkandoo ci yow foo masaan ne gis sëñ bas da nga ko gis moom amul kenn ku ma mas a xam te xamoo ko kenn ku ma mas jàpp te jàppoo ko yàlla dogal mu jiituñu te tey ji bu fi nekkoon fii ma waxe yow mi ngi fii sama suuf toog mu ngi Seydina Ousmane Nooréni sëñ Medoune Sey na ma defal le nga jël bis bi nga tuddee ko Seydina Ousmane tax ren kenn gis fi fanee bu góor fanee bu góor baa nga aljana mooy Seydina Ousmane Nooréni moom la ñu ko dippee wàcce nañ ay kaamil yu bari jàng nañ ay xasida nijaayam mi ngi ci sunu biir muy Serigne Ablaye Guèye ñun ñuy def rek te yàlla tax sàkku wuñ dara àdduna Serigne Touba rek a ñu ñor bi ñu xelalee loolu it ñu sant ci bu baax ñu def seen Seydina Ousmane maa ngi ñaan kenn ku nekk fi nga toog bala ñoo jóg ñu jàng fukki xul wallaahu ahad ak benn yu sell yéene ko ko yéene walla ko suñu nijaay ji noppal barki démb muy Serigne bay Diop suñ borom jotale leen ci yoon bi bala ñoo jàll إذ الدعاء ينفع الحي ينفع الميت في القبور وينفع الحي ويجب الأجور Serigne Touba nee na ñaan day jariñ ki dugg ci biir bàmmeel waaye day jariñ kii dox te day waral ay tuyaaba dafa am benn nitu yàlla bu màgg ci lii ñu def ci ay li ixlaas ñu bañ koo xeeb dafa am nitu yàlla bu màgg boo xamante ne nii wax nañu ni dafa mës a romb ci armeer romb jëmm joo xam ne suñ borom ma ngi koy mbugal mbugal lu kenn mënta nettali mbugal ju tar jëmm jooju yërëw ñeewante jëmm jooju daal di jàll moom waliyu suñu borom bi bi mu dëppaatee fekk kañ doon mbugal mu nekk ci ay aljana yu kawe mu jaaxal ko lool mu tourné ne suñu borom jëmm ji bi ma fiy jaar mi ngi ci ay mbugal yu doy waar matut cinq minutes ma dëppaat fekk ko ci ay xéewal yu toll nii kii lan la war a def lu ko may lii suñ borom ne ko laaj ko ko moom mu néew bi mu tontu la bi mu ko ko laajee néew bi ne ko dafa am ñu fi denc si woon ay néew bi ñu dencee ba pare jàng fukki xul wallahu ahad ak benn yéene ko way yi fi nekk bañ ñu ko suñ borom séddalee waaw qul wallahu ahad de tira ba suñ borom daggal tuuti man loola laate am loola moo weral sama teraanga ji tay kon ku ñu jàngal fi qul wallahu ahad ak benn neem waaw nga rek kay jariñ kon massa kenn xamul ñaata lexlaas dañu def di soññaat nit bu baax ci li ñu fi indi te boole ñu loola mooy jaamu yàlla liggéeyal Serigne Touba sax ci ak jub doon ay nit ñoo xam ne ay roykaay la ñuy doon ndaxte day dañoo nekk ci jamono boo xam ne Serigne Touba day junjoon na ni هذا الزمان أقبه الزمان لكثرة العصيان في البلدان jamono ji mooy jamono ji gën a yées ci àddina ngir bëri mooy yàlla gi nga xam ne bëri na ci réew yi ku ne xam ne ne fi mu ne nii boo xoolee tey mooy yàlla gi ci réew mi kenn xamul nu mu toll nit ñi ñi ngi sàkkoo nu ne àdduna nit ñi ñi ngi sàkkoo nu ne daraja nit ñi ñi ngi sàkkoo nu ne alali àdduna nañu dalalaat sunuy xel te nu xam ne àdduna lépp dafay jeex àdduna lépp dafay jeex kenn ci ñun bi muy ñëw indaalewul dara kenn ku nekk booy dem dara du la moo ne wa ma min daabatin illa ala allahi risqoha doomu aadama nekk man yàlla maa yor wërsëgam te insha allahu rabbi Sëñ Tuubaa nee na donte gaynde diggu njolloor moo la koy jox wërsëgoo dana la kon nit ñi dañu defaraat seen i jikko yi comme ni ko seen Medoune waxee ndax ñun kat dañuy ñoo xam ne yàlla def ni bala maa laaj ñi may ñi ñi may ñi ñi ma yónni woon danaa laaj ñi ma yónni woon ci yéen ba pare te képp kii wax ñu lay déglu rek ndaw nga ca ña ñu yónni kon suñuy kàddu mooy ndaw ñi nañu góorgóorlu nañu sàmmaat seen bopp nañu toppaat Serigne Touba nañu seetaat lan na Serigne Touba doon yaree nit ñi muy jaamu yàlla muy liggéey muy gore Serigne Touba daan na wax ni ku la teree liggéey moo la xañ teraangay àdduna ku la teree jaamu yàlla moo la xañ teraangay alaxira tayyar jërul ñàkk bànneex jërul gàcce àdduna jërul alaxira kon nit ñi nañu wat bu baax te ñu xam ni yàlla dimbali nañu ndax kenn ku nekk ci ñun fii nga toog li nga man say ndey ak say baay bañ fi toll mënuñu ko woon kon avancement am na adduna bu yàqu la danañ koy wax waaye adduna du yàqu yent bi neen noonu bu leen di xas jamono ndax bu ngeen xasee jamono leen jamono suñ borom mi bind jamono ngeen di xas adduna bi jant bi mës na génne soowu ñëw penku suuf si mës na déplacé wu kon nit ñi ñoo changé waaye addina changé wul kon nañu lu ñu yaraat njaboot gi ndax mbon gii ngay gis fii ci marché bi ba ñëpp ci kër yi la ñuy del ndax boo te kullukum raain wa kullukum masulun an raayatihi kenn ku nekk sàmm nga ci sa njaboot te bu yowmal xiyaamati ak bare danañ la taaj sa njaboot laaj la naka nga leen sàmmee woon nit ki dana jaamu yàlla bay bëgg a dee dem ba war a tàbbi aljana ak njabootam yóbbu ko sawara te ñàkk gum leen ñàkkoon a yar moo ko waral kon nañu yar njaboot gi te xam ne jaamu yàlla gi doyut njaboot gii danañ ñu laaj nuñ leen tuddee woon nuñ leen yaree woon nuñ leen daan dundale dañuy nettali ci benn mu taale bu boo xam ne dañuy wax ni jenn jëmm daa bari woon àll lool ba kenn mësta xam ni mu mel mësta jaar ci ñàkk da cee juddu màgg ci yaru ci faatu ci bi muy faatu ay waajuram daal di nettali way doom yi fi bàyyi waxtaan daal di ne suñ bàyyi ku mësta jaar ci toraan ci toroxtaange àdduna mësta dund lu naqari léppam da koo dund ci lu neex nañu xool biir bàmmeelam nan la fay dundee bi ñu ko tàggalee kàmb gi ñu koy denc ñu fekk uude bi nga xam ne moo doon defar ay coordonnées ci buntu kër gi ñu fay ko millions yu bari moom itam gasal ko kàmb ci wet gi ñu dugal ko fi bàyyi leen benn kàmb bu ndaw benn palanteer ne ko lépp loo gis ci biir nang boo xëyee nga nettali ñu ko bi ñu dugalee bàmmeel bi dugal ko moom itam ci wet bàmmeel bi teg ko bi ñu xëyee suba sulli ko woo ko ne ko noo gisee suñ papa mu ni man de waxuma seen papa ndax man bi may dugg ci biir dafa am benn caas bu ma faate woon sama du duggaale ko fa bii ba léegi ci la ma malaaka yi laaj bàyyeeguñ ma kon yéen moom seen bàyyi moom xaw ma xaw ma moom ay mbiram kon nañu góorgóorlu te xam ni àdduna du dara sàmmwaat bu baax jaamu yàlla man de li ma leen daan wax laa leen di wax li ma fi indi mooy li Serigne Touba nekkoon ñu yeesalaat ko wahab lana zuriyatan tudiimu al amala saaliha yaa xadim wahab lana zuriyatan tudaddidu nahja nabiyal Mustafa tahidu man de yeesal yoonu Serigne Touba wii dimbali waa ndaw ñi ta yàlla rek tax wan leen yoonu lislaam wan leen yoonu sariya yaraat leen ci bi loolu rek moom ma yëkkati waxtu ma ci nekkee nekkandoo leen ceeg man waxtu ma ko wàccee wuti ko ca ne te xam ne man maa juum loolu laa leen di wax te loolu mooy li nekk ndax ku nekk yomal xiyam danañ la taaj laaj la laaj la yaag sa njaboot kon danaa leen wax li nekk bu ko defee ñu boole maase góorgóorlu saxaat ci jaamu yàlla saxaat ci liggéey sellaat toppatoo waa yi lu waay tane sa morom mu dimbalee ko ko te yàlla rek tax sëriñ bi sant naa la gërëm naa la du sant naa la bu baax ñu gërëm naa la Serigne Maram yow itam sant naa la te bëgg naa bu baax boo delluwaatee waa Njigéej waa Touba Lazare na nga ma leen santal na nga ma leen gërëmal yow day sama diggante digganteeg yow day diggante boo xam ne dogalub suñu borom la ndax wax naa ko sànq ca biir dañoo ànd ci sëñ Bass Anta Niang ndax yoonu murit ñu doon kilifa am kilifa dañu koo gënal ba ñu demee Serigne Bassirou ne ko loo def ci Bassirou Mbacke mii man nga ko defal Serigne Touba defal Mame Thierno nga ko defal tourné na ma yow itam li ma lay sant mooy ak njub boo ci saxee loo bëgg àdduna ak alaxira di ko am boo ko wàccee nag gàddulatuma la dara kon ñun war nañu yoon wi ni jaar te fasuñ ko yéenee wàcc li fekk ñoo ngi ànd ak sunu xel Serigne Maram santal ma mbokk yëpp man gërëm naa mbokk yëpp askanu Mbàkke bàyyiwuma kenn maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp taxawaay bi rafet na docteur yi nga xam ni ñoo fi yendu def consultation gratuite ñoom ñëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm waa koñ bi nga xam ne ñoom itam ñoo génn seen ay kër amul murit amul tiijan amul xaadir amul laayeen ma li ma wax rek kaay baax laa woote kaay baax nag yéefar bi sax mënoo ko cee génne ndax sëñ Tuubaa day bi mu ñëwee li mu wax mooy muridullahi bi mu yeggee ci yàlla dëgg-dëgg yegg ci yàlla yàlla jox ko ndigal ne ko wooteel daf ni képp ko namm yàlla ñëwal nga ànd ak man namm yàlla nag murid bi ci la tiijan bi ci la xaadir bi ci la laayeen bi ci la li sëñ Tuubaa woote muy muridullahi képp ku ci génne sa bopp sa xam-xam a gàtt wala nga di dof sëñ Tuubaa ku jëm ca yàlla rek mooy sa jëwriñ jëwriñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf la képp ku bëgg yàlla jëm si yàlla mooy sa jëwriñ ñun nag foofu lañ fas yéene nekk woote waat kaay leen baax fas yéene tënk lépp ànd ak moom jébbal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sant naa koñ bi yëpp génn nañ seen i kër bi bis bi jege see ba léegi nelawatuñu lekkatuñu defatuñu dara sant naa leen gërëm naa leen soxna Mère Jalle Sall yow itam sant naa la yaa daay bi nga àndal bàyyiwuma kenn Kaolack ak Ndar ak Mortala Touré ñoom ñëpp ñu ngi suñu biir di sant ñëpp di gërëm ñëpp ma kenn maa ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla defal ndam yal nañu yàlla defal tawféex yal nañu ko téyewaat ay déwéni déwén sant naa baax Thiès TV bi nga xam ne ñoo ko couvrir a waa Thiès Info ñoom itam ànd ñun liggéey bi maa ngi leen di sant ak yeneen médias yi nga xam ne ñoom itam maa ngi war a liggéey ak ñoom ci bis bi maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant yàlla yàlla defal ñëpp tawféex ndam ak tawféex wasalaamaaleykum wa rahmatullah